waaw gis la ngay liggéey liggéey rafet li nga xam ne mooy animation euh, merci beaucoup euh, topp ci seen ginnaaw ah, euh, waaw ñu ñëpp a bokk <laughs> yem ci li ñuy def rek <laughs> da ngeen ko rafetal seen boor ñu nit ñu rafetal suñu boor te foog naa àdduna moom nay rafet rek kuy faral di def lu rafet rek yàlla dalay rafetalal sa ay mbir musique sénégalaise nag maa ngi Sen TV ba ma fa duggee ba tey man dama ñëw ne man musique laay def ndax lan benn dama ko bëgg euh, mélomane la donc ñëpp laay déglu di di di bàyyi xel ci musique lépp li nga xamante ne am na ci biir musique lépp lu woykat bi wax ba ci tëgg bi sax dama ciy faral di bàyyi xel moo tax bu ma yàlla boolee ci askan bi ci euh, ci li nga xam te ne mooy famille audiovisuelle rawatina animation j'ai choisi de faire la musique. Fama gis nañu euh, nga wax ko léegi ni musique sénégalaise moom nga choisir bëri nga ñu ci xam ñu toll nag si période boo xamante ni nee naa ko tendance am na. ah euh, mafia am na rivalité am na defante am na. Mhm. na nga gisee milieu showbiz euh, actuellement tendance bi si am. damay ñëw sama question mu gën a leer si diggante Sidi Diop ak Wally Seck jamono yi ñu toll nii ku ñu dégg micro loolu lañ loolu lañ lay laaj boo génnee tey. bu subaa kee génn leneen. Mhm. bu kii génn tey vidéo kee clip kee su génn vidéo waaw. dëgg la euh, am na loo wax muy benn moo ci sa biir question mu di showbiz lépp showbiz la. gis nañ ko fii keroog maa ngi koy wax ci benn émission Sen TV 1996 euh, la ñu delloo si muy Youssou Ndour nii la fa demee woon ñoom ñaar ñëpp ndaanaan même période lañ daan génnee li nga xamante ne moom mooy album ndax boobu benn maison de disque moo fi amoon bu doon jaay mu di Talla Diagne ak Origine SA donc tey ñoom ñooy boole produire leen ba dañ leen daan boole ba benn instant lañ leen di génne doon même instant fan di sot bu kii génnee ñu ne kii mën bu kii génnee ñu ne kële mën bii nii nag moom xaw na sax wute un peu ndax ñu bëri ñu ngi gis naan ab topp tànk la lu suñu président Bougane Gueye Dany defee woon Macky Sall rek ab topp tànk la ñu gis ne Sidi mi ngi koy def ki nga xamante ne moom mooy euh, waali sekk waaye man ca na gisee pour man c'est de bonne guerre hein ba pare deuxièmement stratégie la pour Sidi Diop waaye yàqul dara ci musique sénégalaise dafa rafet. man man bu doon may ñoom dama leen di nañ dolli ndax day tax ñoom ñaa ñëpp liggéey damay naan Sidi bul bàyyi toppal tànk waali xoola teg ko choc xam nga lu tax mu wax ko te bëri na de bu ñu doolee ba duñu mujj fans yi duñu mujj xeex lu ma bëgg na fans yi sax defante xeex ba nga xamante ne dañuy def duyoo ñoom ñaar xamoon naa ne daanu daje Youssou Omar boo bay dellu si waat ñoom dafa am différence parce ñoom dañu nekk ay xale dafa am différence ak yàkkante bi léegi réseaux sociaux mooy euh, endroit bi nga xamante ne fa ngay dem pour yàq nit am na tuuti différence ndax technologie bi dafa avancé. Mhm. Euh, dëgg la am na différence musicalement parlant dafa tax Sidi dafa gën a liggéey. Euh, Wally un million d'abonnés la am et poussière tey bu Wally génnee ñu dégg ne Sidi contré na ko abonné yooyu dañuy daw ci Sidi. te dañuy may vue Sidi dañuy dem découvrir talent Sidi fan yi gis nañ ne que Sidi Diop cak cak mu génnee te lépp lu mu génnee. pur talent la ñuy gis de génne lu nit ñi di bëgg même bu dee fans Wally nga Wally tamit gis nañu performance yi nga xam te ne def na ko ak yokkute bu bëree bëri ci carrière maturité ak yeneen ak yeneen euh, li nga xamante ne mooy yàkkante bi nag moom man mi ruube nañ ma. man mii far ci ñoom. wax ñu benn anecdote loo si parce que. parce que ñun ñii ñëpp ñu si wax ñu si. man mii ci yàkkante boobu ruube nañ ma. musique laay def ma ma xëy def émission ci biir à rendez def sama rubrique ba mu baax tëdd ba guddi ñu yónnee ma ay vidéo mu ngi mel ni tey ñoom di débarré Seneweb sama ay naataango animatrice Safia Alima Ndione ñoom ñëpp woo ma mais lan la lan la lan la ndax lan dañu wax mooy bu période euh, Queen Bees laa waxal mais ni ñu ko jëlee moo moo moo demeewul ak ni ma ko waxee ba pare dañ ko daggee instant bi nga xamante ne fa li ma wax dama ne woon que Queen Bees euh, wax na si ce n'est pas le père c'est tey ñu xëy gis ko wax na loolu ñu bari xam na ne Youssou Ndour Wally lay waxal mu dem ñëpp kon dañ ko doon xaar ñu defal ko concert comme ñeneen yi ñu xëy gis ko mu def ba man nag jour boobu dama jël li ci commentaire yi laa jël rek yéegal ci suuf ndax loolu moo fi amoon na xam nga yéen ñi yéen a génnee sañ-say yéen a def lépp donc man commentaire rek laa jël jour boobu yéegal ko et malheureusement ça tourné Queen Biz daal ci def poste ne jigéen di yàq jigéen mais fu vidéo bi jeexee ci li ñu moom li mu posté maa ngi naan bàyyi leen ma ma jekkali man artiste laa wóoyu ma mais ci ñoom laa bokk bu ma toogee dégg nit di euh, yàq artiste dama leen ne déedéet bu amul dara sax bu mu mënul dara dama leen ne ak mën pourtant xoolal fii ni mu ko yuuxoo sax xoolee na ko de fexe ba défendre ko et naturellement te bi may dugg ci yëf yi dama ne dama koy rafetal man su ma la invité sax sa carrière sa jaar-jaar mu professionnel professionnellement laay waxtaan ak yow jaar-jaar beneen bu lëndëm bugguma ko bañ ci dugg exactement donc nag Queen gisee ko neneen et j'en profite parce que boobu ba tey coow li bëri woon na remercier ñi ma ci woo ñëpp ndeysaan na xam nga tey kuy liggéey nga am benn genre bad buzz bu xaw a jaxasoo un peu bu nar a ñaawal taachal tuuti sa carrière dafay xaw a metti donc euh, di ko ci jéggalu moom ndax jéggante wuñu gisante wuñu boobu ba tey euh, jéggalu bu baax a baax euh, waaye itam jéggalu melomaan yi